intervenir foofu amu fa sens d'abord na loolu leer ba pare ay asqam siraatika tamil askam nan dem kalla innal insana la yatghi am na yoo xam ne man dégg yàlla man yooyu ma ci di attardé wu am na yu ko ëpp solo ni sàngara si mel ci dëkk bii ni njaalo si njaalo gi mel ci dëkk bii ni divorce yi mel ci dëkk bii ah waaye sëñ bii nañ wax ci yooyu yooyu nga xam ne mi ngi nasaxal société bi di ko yàq-yàq goo xam ne kenn xamul fan la jëm mais ne ne dernière information yi ñu am mooy Sénégal fii Sénégal la Sénégal la ñu wax de Sénégal nga xamante ne bii nii bon 15 millions 16 millions d' habitants la ñu ah, ah maximum ah maximum ah nee nañu bis bu yàlla sàkk li ñu wax nii c' est pas hyperbolique c' est pas de l' exagération c' dire c' est et et puis prouver aussi bis bu yàlla sàkk trois cent quarante quarante sept. quarante cinq divorces par jour officiel maanaam waxuñu yi nga xam ni àggagul tribunal xamaguñ ko billet yi Nord ouest tu as tu comprends ah ah alaaj bi ma donc noonu la vous comprenez ca àll waaw loolu moom dangay ngay bàyyi laaj après xoolal ñu de l'iceberg oh, xoolal ñun on a on a de très sérieux problèmes et il faut il va falloir aussi nag problème yooyu ñu teg ko ci taabal ji dégager la problématique et puis poser les bonnes questions xool nag ana lan mooy le le vrai problème ñu duut ci suñu baaraam situer les responsabilités parce que am na loo xam ni suy am te tiitalul nit ñi c'est parce que dafay mel ni nit ñi ñoom def yal na ma yàlla jégal dafa mel ni dara nekkatul ci ñoom ay xotti nit lañ. yàlla incha allah musal tax ah raglu na de waaw kooku nag après ñu dem ci alaaji ndax mënuñu tee ñàkk bañ a dem de ndax loolu loolu moom loolu loolu ëpp de mbokk yi ñetti ak ñeen fukk ak juróom officiellement maanaam mooy yi wér wóor ni tribunal dina ko tas par ci ay sëy ñetti téeméer salaasu mia ñu teg yu teg eh, eh, eh, ñeent fukk ak juróom wa yoo xam ne dina am mutlaqan lu kenn lam lamewul ci ay divorce subhanallahi alazim waa góor ñi ñoo muñu lam jigéen ñi ñoo xamul nu ñuy sëyee ah alaaji kon yow kan nga fi nekkal su boobaa yow koo fi nekkal góor ñi wala jigéen ñi ah nekkal fi kenn rek ma nekkal fi ki ci des nga indi say argument ma indi samay argument boobaa ñu confronté ñu xool bàyyi ma fi jigéen ñi ah. eh, alayhi wa waaw lawla nisaa. la ubidallahu xaqa ibadati alaaji buur yàlla xañ na boppam ñu jaamu ko dëgg-dëgg jaamu correctement yow yow borom kër boo bëggee am dara ci jigéen ñi noonu nag da nga war a xam ni nag ndegam yàlla mi bind daganal sëy moom moomu moo budul woon ak jigéen ñi des na ma jaamu man yàlla dëgg dëgg jaamu kon il s'est fait violent maanaam maanaam suñu borom il s'est violenté moom cest à boppam ni moom xam moo bind c'est-à-dire yàlla moo bind moom xañ na boppam ñu jaamu ko d'accord na amul problème te jigéen a tax waaye léegi yow nga nekk jigéen ci kër gi ah kon alaaj nee ñun góor ñi borom kër yi dañoo war laal jigéen ñi ak bant bu gudd a bi ci des mooy mu ni seet bi ñuy wax ci yonent yàlla luut. soxnaam nekk maquerelle. nekk maquerelle. waaw waaw xam naa di maquereau waaw góor ji waaw góor ak waaw waaw ci keroog ba mu amee ganam ña malaayika yi ndey sànn. waaw ndey sànn. nee na moom li ko gën a yéem ci bi muy jàng ayat qur'ani yi yooyu. nee na Seydina Luut yonent yàlla Luut. nee na ba léegi gisuma ko mu xas jabar ji. mu menacé ko mu dóor ko mu saaga ko alaaji boole ci wala sax alxuraan mentionné turam ñu xam ni kii nii la tudd ba léegi imraata luut rek lay wax kon alaaji ni kon dafa jàpp ni de ah nee na divorce ak di def yenn façon yi jigéen ñi nee na kooku du jullit dëgg moo war a def loolu loolu alaaji moom ci lecture am ak xadis yi mu indi léegi moom moo fi nekkal jigéen ñi jigéen ñi nag yéen wax dëgg yàlla vous avez vraiment un bon avocat parce que euh, yi muy wax nii man oh, fu may jaar ba daj ko saa va être vrai problème seulement xanaa rek man it alaaji man damay waxal góor ñi ah waaw Moustapha nee na am na lu des aussi hmm. mooy li créer problème yëpp kan la mooy kan seytaane kon léegi ñun am na ñetti élément élément bu njëkk bi entité yi mooy il y a problème boo xamante ni bi ni dañ ko situé ci góor dafa war a muñ te muñul dafa war a xam te xamul am beneen problème boo xamante ni bii ni Moustapha évoqué na ko mu nekk un vrai problème wala boog le vrai problème ah muy le satan seytaan ndax nag lii waral góor ñàkk mën a muñ lii waral góor di tëb di dal ba tax léeg loxoom jëp jëm ci soxnaam am na il y a une chose qui est à de réaction là c'est le satan moo koy merloo mooy tax muy fuur di tëb di dal du ma sa morom eh bien loolu kay waxatuñ ko ah waaw waaw jigéen ta yàlla yàlla <laughs> waaw am na Sénégal de jigéen taal jëkkëram waaw waaw waaw waaw yàlla yàlla dimbali man dama jàpp ne. Mhm. Mhm. jullitu mhm. dañu jàpp ni seytaane. dañu jàpp ni seytaane mythe dañ ko dugal ci mythification maanaam pour ñoom seytaane amul. barke alquran ku defee ni seytaane amul xam yàlla dina wax mu waaye yow. che boo aawudu billahi loolu dafa ngeen yow waxoo. maanaam waxoo. ni boo ko ko ba ismu zaat nga indi audu billahi ndax yeneen turu ci des yëpp ragalu ko allahu rek la ragal moom iblis am gi mu am ba tax ngay muslu ci moom ngay werante naan am na wala amul effectivement gëmuñu am gi mhm. Mhm. effectivement waa mais bien sûr. parce que gis. effectivement. donc la. seytaane ah. euh, ay ay te xam nga alaaji li ci gën a yéeme seytaane euh, non seulement ñun àggaguñu ci xam ni lu am la. wala àggaguñu ci gëm dëgg-dëggi ngëm ni seytaane lu am la. bu fekkee dañ koy xaar ci ni lii mooy seytaane nii lay mel duñ ko gëm léegi nag loolu nag mooy sunu problème déet déet seytaane bul ko xaar foofu nag parce que d'abord baatu seytaane lan lay firi nan dem ci baat yi soo demee ci baat yi rek laa yi ngay daal di gindeeku seytaan li muy firi foo ko déggee mooy jinne boo xamante ni bii ni dafa weddi yàlla ba pare féttéerlu loolu lay firi léegi nag mu des baat bi arabiyan lan lay tekki baatu seytaan dañ ko tëgg tëgg fayaal li muy tekki mooy lu sore lool yërmande yàlla loolu la baatu cheytaan di firi cheytaane jinne la wa kaana iblisu min al jinn fa fasaqa an amri rabbi kooku qal alquran la jinn baat bi li muy tekki mooy lan mooy lu bët mënta gis alaaji dama lay nettali benn mbir sunu borom bi mu waxee ci alquran wa kaana arshuhu ala alma man buur yàlla sama arsh bi sama trône bi mi ngi ci kaw ndox iblis dafa xëy dajale njaboot gi ne dama damaa bëgg ngeen defal ma benn trône ci kaw ndox bi ñu defal ko benn trône ci kaw ndox mi mu koy tollale boppam ak yàlla su xëyee day woo njaboot bi yëpp kenn ku ci nekk mu am benn mission boo xam daf la koy assigné pour que boo xëyee mu doon sa mission nga dem nga doxi ko bu demee ba midi kenn ku nekk ñëw war a def sa compte rendu kii ni ko tey fexe naa ba jàkka ja imam bi dóor na kurfañ maamum bi jaxasoo na gouverneur tëj na jàkka ji dootuñu julli mu ne ko eh bien li nga def baax na may toogal ne keneen ki ñëw daal ni ko tey fexe naa ba doom ji ak papaam dóorante nañ kur fañ ba jël nañ doom ji tëj nañ ko papa ji yóbbu nañ ko hôpital Iblis ni ko eh bien li nga def baax na trop ah, mais toogal ne kii dikk daal ni ko wuu tey daal benn jigéen boo xam ni dafa ëmboon ba nga xamante ni bii daanaka tey la waroon a wasin fexe naa ba merloo chauffeur bi nga xamante ni bii ni moom moo moo ko waroon a may mu jéggi tali bi ba mbëkk na ko xaw ma deenaam déewul chauffeur bi moom tëj nañ ko mun ko eh bien li nga def baax na mais toogal ne kenn ku ne wax ay dégâts yu kii ni ko am na benn waaye tëdd na fee doon nelaw yee nañ ko sax pour mu jug julli tisbaar ak takku saan waaye fexe naa ba rof koy nelaw raayaat ko rek ba mu gën a nelaw ba waxtu wi romb mu ni ko li nga def rëy na et eh bien baax na mais toogal ne kii ni ko fexe naa ba góor ak jigéen bi wéetoon fexe naa ba dugg ci ku tuba yi góor ki fexe naa ba mu xumb fexe naa ba dugg ci ku jigéen ki moom it partie intime ma ngay xasan laataa ñuy teqali koo fexe naa ba njaalu nañu li nga baax na mais toogal ne am na benn doomam bu ñuy wax zaasim am na ñu ko tomb am na ñuy wax daasim ñaari riwaaye yëpp am na kooku day dikk ni ko bàyyi bàyyi doomu iblis la juróom-ñeenti généraux la kenn ku nekk dafa am lu mu la assigné kee dikk ni ko bàyyi xam nga lu ma def tey mënu ko déedéet mënu ko dafa am benn sëy bu ñu takk sëy bi bi ko takkee fexe naa ba dugg ci xolu ku góor ki ak xolu ku jigéen ki fi mu ne ña ci coow loo xamante ni bii ni laa hawla wala quwwata ku jigéen ki ñaan na baat waa ji may na ko baat taqali ko nañu rek iblis daw dal di koy tatafu dal di koy fóon dal di yuuxu xataraayu dal ni ko yow rek yaa fi def lu jar sargal la xam nga lu tax loolu parce que li yàlla gën a bëgg la iblis gën a bañ abgadul xalaali inda allahi at talaq kon lan nga ciy dégg ahabul xalaali inda allahi an nikah loolu mooy jawaab ji sunu borom wax loo na yonente bi alayhi salatu salaam ci xadis ni ko eh, waxal jaam ñe ne leen li yàlla daganal ba noppi gën koo bay mooy passé lu muy tekki li yàlla daganal ba noppi gën koo bëgg mooy sëy du loolu lay tekki kon nañu am conscience ci loolu te xam ne am na koo xam ne nag moo nekk ci surtout du la ci bàyyi waay nag waa léegi da ngeen di xool boobu corrélation ci digganteeg jëkkër ak jabar ak seytaane ci li ma leen nettali ci iblis bu xëyee ak njabootam googu kon kooku doo ko sóoraale kooku doo am ci moom kooku doo yokk sa degré d'attention ci moom léeg sa jabar xëy ne faññ te defoo ko dara ñu naan ay mauvaise humeur du benn mauvaise humeur Zasim la moo fa jaar dalaa bëgg a tappaas yow ku góor ki sa xol kii nga ne ko du ti nga nangam nangam li ngay nangam coow la ni kur waa léegi comme deme na noonu na yam mun la acce kon yow it fekk xolal mer nga seytaane ñëw na fekk bari na problème yi dafa am madaaxilu cheytaan bunt yi muy jaar nag moom iblis dafa bari alaaji jëkkeel ci ñàkk alaaji jëkkeel ci ñàkk sëy yu bari ñàkk a ko tas te acheytaanu yaidukumul faqra alquran pire la iblis day dikk ni la yaa ngi nii sa jëkkër a ngi nii yorul tus amul dara ay nelawam doyul ñëpp tereñ la nga të waaye baax na fa ngay mujj ak moom du neex de jigéen ja xëy mer xas waa ji moom it mu gis ci boppam ñu defa ñàkk alors que nit ku ñàkk amut déedéet amul am gi nga am rek doy na am am waaw ah, waaw ñàkk buntu la boo xam ni iblis da cay jaar mën na caa jaaree convaincre ku góor ki ba tax mu xëy bàyyi jabaram parce que danaan mënatuma koo yor mbaa mu jaaree ca convaincre ku jigéen ki mu xas jëkkëram mu gis boppam dem yoonam waaye alaaji moo tax nag yëf yi nekk une interdépendance parce que xam nga lu tax hmm. nit normalement warta mën a ñàkk ndax asamaan saa ngi taw suuf saa ngi nii ni bégg di dem waa ana lan moo tax métier yi nga xamante ni bii ni mooy fegal nit gàcce ak ñàkk ak coono nangu wuñ cee yar nit ñi promouvoir ko lu dul di leen jàngal tàpp toto too too nga ñu nekk ci loolu di am ay diplôme yaakaar na ñoo ci nekk di dof doflu a ah, ngeen baal ma parce que non kon donc yëf yi da ngay xool ba ci biir da ngay xam ni gis nga les problèmes sont liés et que les responsabilités sont partagées gouvernement bi am na ci responsabilité je dis bien gouvernement bi am na ci ay resp ay responsabilité ci ci taux de divorce bii di am am na ci xalif généraux yi am nañ ci ay responsabilité yu mag koo fi gis muy góor muy jigéen am na ci kër gum aju nañ wax nit ñi ne leen seytaane am naa na góor ñi di muñ jigéen ñi nañ bàyyi xel seen bopp du nit boo meree rek lu la neex wax lu la neex def no olof dafay faral di lépp nit soo meree boo bañee ñaaw deseel sago imaam yi nga xam ni nit ñi dinañu daje ak ñoom juróomi yoon ci bis bi suba tisbaar tàkkusaan timis gee wax leen nit ñi li xew ne leen seytaane am na ñu xam ko yéen seen responsabilité moo gën a engagé wu sax ñi ci des parce que yéen nit ñi dañuy gisee ak yéen juróomi yoon ci bis bi jàngalekat yi sëriñ daara yi nit ku am problème balaa dem fenn ci yéen lay njëkk a ñëw laaj leen xalaatam ah alaaj nee na ah, ah, Moussaf ma ak man ak man waaw man maa jéem man moom ala kii Moussaf entre nous wallaay gis nga alaaji mii mën na maa jël en mën na maa jël en thème man gis nga man man man man gis nga dama yaakaar ni nit ñi il faut ñu surtout góor ñi il faut ñu xam ni gis nga li nga wax léegi jigéen ndegam buur yàlla tabaraka wa taala xañ na boppam yow borom këram war ngaa xañ sa bopp sincèrement su waaw boo xamee sa bopp nag wallahi wallahi wallahi wa am wa amila lima baada al xam nga ma et puis jigéen day nekkak ak yow ci kër gi alaaji di la fóotal di toggal di ëmb di wasin di nampal say doom di leen yar maa ngi giñ ci màggug yàlla gis nga diggante ëmb ak wasin ak nampal ak yor xale ba keroog muy màgg di xàmmee coono ba ca nekk soo ko xaajee junniy xaaj góor atunu ko qu'on se dise la vérité euh, ah non moo tax sànq ma la dafay non mais compliqué parce que xam nga waaw. wallahi law la nisaa bu dul woon jigéen ñi ñu teewlu ko et puis xam ni seetat seen bopp ñoom parce que alaaji man damay wax ay waxu jamono man cest à ma wax ay waxu aaya ki hadis de cest à lii may wax nii c'est-à-dire c'est la vie maanaam li ñuy wax naan da euh, euh, di lu ñuy dundu bis bu nekk. c'est récurrent maanaam sa jabar day ëmb sa jabar day am doom sa jabar day day day togg tàngoor wi Seydina Umar ibnul Xataab wallahi alaaji Seydina Umar xëy na jabaram ni ko ratt poñi benn waay jóge fële ca àll ba ñëw te xam nga kat lan la dafa wax ak jabaram rek jabaram tontu ko mu ne tey àddina tukki lu tax jabaram di ko tontu may wax ak yow nga di ma tontu eh bien yow yaay kan boo waxee du la tontu léegi la moo tax yow yow léegi yow boroom kër yow mais kay kuy wax da nga bëgg ku la tontu da nga naan ma tontoo waaye ku wax ñu tontu la sa il faut mu leer bu ñu nax suñu bopp Seydina Omar waa ji dafa ñëw pour kalaame ko soxnaam parce que nee na moom soxnaam dafa wax ak moom mu tontu ko Seydina Omar nga xam ni ci booba jamono moo doon amirul muminin waa ji bi mu ñëwee ndeysaan yukku yukku daw dugg ci biir kër gi rek dégg Seydina Omar soxna si ni ko ratt poñe tàmbali lu ne mu wax ko ko Seydina Omar ni patt rek waa ji naka la dégg lool rek daal di sampat am xelam daw wàññeeku Seydina Omar dégg bruit bi génn daal di ni ko man hu ko kan la waa ji daal di dikk daal di ni ko man la yaa amiral muminin dama ñëwoon pour kalaame la ak sama soxna waaye ma ñëw fekk sa soxna mu poñe la xamatuma lan laay wax looloo tax ma daal di daw pour dellu Seydina Omar daal di ko kaay ba mu ñëw mu ko gis nga lii moo ma def mu ne ah, mu ne ko dinaa ko muñ ndax yu bari yu may defal te waru ko est-ce que yéen may dégg lii mu ma def danaa ko muñ ngir yu bari yu may defal moom jigéen ji te waru ko mi ngi fóot sama yére te waru ko bu fóotee dama ko war a fay <coughs> ah bien sûr fu mu ko waree daa bokk ci sëy da cee bokk ah déet il faut que les choses soient claires mi ngi nii di togg di ma jox te waru ko togg da cee bokk fu ci bokke mi ngi nampal samay doom te waru ko ndax bu leen nampalee dama ko war a fay yontu ma Muhammad yaayam moo ko nampal kan moo ko nampal du Halimatu Saadiya du dañ ko daan fay xam nga lan la sama gars yi ah a ah, ah lii alaay Moustapha nee na il va falloir vraiment qu'on ait une édition spéciale sur ça deux heures de temps bu ko defee su boobaa alaaji dina mën a nekk avocat wu jigéen ñi man ah sama gars yi ngeen dimbali ma rek ñaanal ma bu ko defee sama xel mi ñëw bu baax parce que xam naa ni pour mu mën a nekk seen avocat vraiment dina dina dina compliqué quoi dina ko li may wax dama ko xam parce que ñun ñi ñëpp ku ci ne yor nga soxna xam nga li ñuy wax donc lii il faut euh, euh, parenthèse la woon ñu ko ñàkk a bañ a wax fa mimma la budda an natakallama bi hada ndax dafa nekk shay'un muhim mais sama client yi di waaw dinaa leen wax beneen xadis koy wax beneen yoon xadis boobu buñ ci duggee wax ji day taañaañal. non dañ leen koy dañ dañ leen koy junj. waaw alaaji jamono xam nga jigéen ñi yéen comme moom mooy seen avocat nag. Euh, il faut aussi mu am benn xadis boo xam ni yonent bi waxoon ni bu dul woon ak jigéen ñi ñu jaamu yàlla dëgg dëgg jaamu yàlla yonent bi wax loolu itam moo waxaat ni. yàlla buur yàlla. bu fekkoon ne. dina sant kenn mu sujootal kenn. ne du wax doom mu sujootal yaay. du wax doom mu sujootal baay. du wax doom mu sujootal surga. du wax euh, euh, euh, directeur am. wala njaatigeem. wala waaye day wax soxna yi. waaye day wallahi nañu sujootal seeni borom kër. loolu laay. ndax àq yi yàlla dëxëñ. ci diggante jëkkër ak jabar te jagleel ko góor ñi jigéen ñi yéen a moom boobu nag waaw équilibre am doucement le matin waaw kay alaaj meen boobaa alaaj ne su boobaa ñu def doucement le matin ñoom jigéen ñi nag à cause de sa hadis waaw koo waroon sujootal noo war a def ak moom noo war a def ak moom nga xaw ko jàppe sang ah ah, ah waaw nga xaw ko jàppe sang yonente ko wax law kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartul mara an tasjuda li zawjiha kooku xadis saxiix la yonent be waxoon ni su fekkoon dinaa digal kenn muy sujootal kenn du ma ne kenn sujootal kenn xanaa dama naan soxna na sujootal borom këram wax jooju lan firi am d'autres termes ah, ni daa bëgg a wax ni kon hmm, waa léegi nag après nag alaaji nag léegi nag su dañuy dem nag d'une manière plus détaillée ñu xamal kenn ku nekk ana lan moo di responsabilité ak problème bi fan la posé wu kii ne ci suuf ñu war ko sedd cër bu rëy te sedduñ ko benn cër yaakaar nañ ni fi mu nekk nii ñun daal problème yi ci ñun rek la dépendre déedéet boo déggee ñu naan la un plus un luy loolu rationalité boobu dafa am fu mu yem nañ ci bàyyi xel un plus un n'est pas toujours égal à rawatina fii Sénégal nag waaw un plus un moom fii n'est pas toujours égal à deux sama waajama ko